loolu bi mu amee mu xamante nag benn ndaw boo xam ne benn maire boo xam ne day jaay añ maire bi moo ko doon jaay añ chaque jour léegi nag saa bu koy jaay añ rek xale di xale bi des fois dafay àndaale ak yaay ji wala moom tam mu fekk fa xale bi de image pare na. alors comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek. Hmm? Euh, benn waay la boo xam ne maa ngi rappelé sax ni père de famille aussi am na jabar am na aussi ay doom Jeanne bàyyi ma waay <laughs> waaw waa ji père de famille la am na jabar am na ay doom voilà léegi nag ndaw si nga xam ne dafa violé doomam kooku jaaykatu añ la dafa daan ñëw chaque jour mu koy jaay añ comprendre léegi nag euh, bi loolu jàllee tamit ñu fàttali ne waa ji am na 62 ans voilà am na 62 ans <laughs> maa ngi wax léegi ne aussi yaayu xale bi moo koy jaay añ voilà léegi nag ci loolu la waa ji profito daal di sàkku xale bi benn yoon ba pare nag daal di koy menacer ne ko bu ko wax kenn li ko feeñal nag mooy xale bi da cee jëlee ab ëmb comme ni ma leen ko waxee sànq si loolu nag la yaay ji daal di porter plainte après nag si la ko policier yi di topp di topp ba daal di koy jàpp ñu ngi ko jàppee sax euh, post de Diamaguène 2 bi nekk Mbour ñoom nag ñoo yor dossier bi daanaka léegi nag bu ñu koy enquête sax moom nangu na ne moo def mbir yi mu doon nag lu doy waar voilà léegi day sax information yi ñu ngi koy xamle ñu ngi ñuy xamle ne da doon daal laaj xale bi xaalis tamit ginnaaw bu ko sàkkoo xale yow paa bu am 62 ans nga koy laaj xaalis lu mu jaay yaay ji mu di koy jël. xale bi la daan laaj xaalis. waaw bi la daan laaj xaalis. xale bi di dem di indi xaalis. waaw su ko jox mu koy menacer des ko xale mm. ce genre de mm. faits divers qu'on lit tout le temps dans mm. les journaux. Mm-hmm. d'aucuns peinent à y croire, mm-hmm. d'autres pensent que ça se passe peut-être dans les euh, euh, régions les plus éloignées yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi faire face tout le temps à ce genre de cas euh, qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme de voir vos enfants être violés surtout et menacés pour la plupart du temps. Mm-hmm. ce parce que nous sommes des femmes nous toutes nous sommes des femmes et puis euh, dafa di li nga xam ça heurte même la conscience xam nga moi je me demande parfois ces gens-là ils sont malades soit ils sont malades ou bien ils sont tout simplement méchants mm -hmm. parce que on peut pas comprendre un homme âgé de soixante quelques années fekk xale bu ndaw bu am treize ans moroomu sëtam wala sëtaatam sax mhm. mu ñeme koo sàkku xam nga loolu déjà feebar la mhm. mais itamit ni que article bi di stipulé rek l' article trois cent vingt ñëpp xam na li moo prévoir le viol mhm. viol di loo xamante ni mooy euh, pénétration nan ma baal ci kàddu gi mooy pénétration sexuelle bi nga xamante ni dafay accès ci nit ki fekk mu bett ko fekk xaaru ko ba pare en même temps ñu def ko sans son consentement le mm-hmm. consentement de la personne bi ñu koy def buñ ko defoon ci mag sax dafa metti astamal bi def ko ci xale te li ci gën a metti mooy les conséquences du viol parce que la plupart du temps voilà les enfants qui sont violés développent des traumatismes te ñun Sénégal on n'a pas le culte de la psychiatrie mm-hmm. te ñooñu noonu euh, si yenn région yi dafa am tabou souvent entre les mamans et leurs filles mm-hmm. du ba tax xale bi doo ko mën du mën a wax ak yow yenn yi waaw xale dafa yaay dafa def de que toujours doomam ñeme ko mu mën di àgg ak moom ci ay yenn problème yenn wax yoo xamante nii ndax jigéen ak moroomam amul amul am tabu parce que benn lañu mm-hmm. rawatina nag ki nga sukk jur war nga mën di waxanteeg moom ba du ragal pour bu ko benn góor amee fu ko toll mu wax la ko wala bu koy commencé sax di wax mu am fitu wax la ka mm-hmm. xam nga kon éducation boobu itamit war nañ ko xoolaat ci biir suñu société sénégalaise parce que viol bi mu ngi ama ah, chaque jour dañuy am ay cas de au niveau des juridictions mm-hmm. ay am na ay bébé yu ñu violé ñu dee. ah des enfants des bébés qui ont été violés yoo xam dañ leen xar. ay xale yu am si. lu bon lu nekk lu nit ñi xalaat rek euh, du ay ay faits divers c'est des réalités qui existent li nit ñi di gis ci tribunal yi ci juridiction yi kenn mënu ko wax. te loolu dafay wane ni rek vraiment une une crise des valeurs certaines xawma nit ñi dañu gëmatul yàlla xaw ma dañu ko ragalatul xamatuma nan la demee. mais vraiment ça fait ça fait trop mal xale bu ndaw. xelam sax màccagul jëm ci côté boobu yow nga koy sàkku benn ba pare ñaar di ko jël di ko laaj xaalis xam nga yooyu vraiment kooku moom dañ koo war a tëj ba damm ci caabi ji mu nekk vraiment un exemple pour tous les autres qui seraient tentés de faire de telles de telles de telles infractions lii lu bon a bon la c'est un euh, crime oui euh, en dehors de de de peine bi nga xamante ne peut nga xamante ne moo di viol est-ce qu'il a en vue peut-être pour gën a mën a tiital ñi nga xamante ne ñoom ñooy commettre ces actes ñoom là tribunal moom action pénale rek la ñu mën a def tribunal rek. Mhm. leneen li ñu war a mën a moom y a des associations de femmes qui sont là qui luttent contre le viol ñooñu mën nañu teg ay stratégies te stratégie yooyu liñ ci wax léegi nii faire de sorte que au sein des familles au sein des ménages. Mhm. qu'il y ait une certaine complicité entre la maman et sa fille. surtout ça c'est capital. xale war na bés bu génnee ku ni ko bu génnee ku ni ko eh, bu yegsee mu ni maman woon na ma ee eh. mhm. mais bu fekkente ni xale bi bu xam na ne bu la nee eh, nga tëb ci kawam dóor ko saaga ko wala sax amuloo jotam sax ba di ko liggéenti loolu c'est autre chose mm-hmm. et puis yal nañu yàlla musal aussi ci ñàkk mm-hmm. yàlla ñu yàlla musal ci coono mm-hmm. parce que xale yi ëpp yi ñuy violer genre xale yooyu la seen yaay dañuy nekk ci mbedd yi di jaay xale bi ñu exposé ko mënul toog euh, par exemple 12 heures d'affilée di jaay man gis naa fii xale bi nga xamante ni ay 10 heures et koy gis très tôt le xale bi mi ngi mi ngi mi ngi lakk beñe te ñëpp ñu ngi koy romb ay góor yu ngi koy tappaas et cetera tout day toog rek yaay ji xam naa day dem lijjanti ji lu mu togg añ et cetera ba pare mais loolu lay xaj na fa su guddee mu yenuwaat affaire ba mooy yenu bagage yëpp moo koy yóbbu elle toute mais lu ne xaj na ci biir loolu yal nañu yàlla daal taxawu dimbali ñu ba kenn ku nekk mën a préserver sa dignité mm-hmm. mais foog naa ni ñàkk gi aussi ak coono gi nit ñi di nekk facteur la boo xamante ni kenn mënu ko kenn mënu ko comprendre mm-hmm. parce que xale moom boo ko boo ko yaree ci wax dëgg yàlla doylu mm-hmm. xam ni moom néegu yaayam moo war a nekk néegam mais pas mbedd mi xale doon ko teg yenn liggéey yi nga xamante ni heure ba mu koy def ma nga waroon dem sàkku ji xam war a jàngi kon yu mel ni du am waaw foofu moom vraiment juridiction mënu ci dara tamit am nañ mooy xaar ma ñëw yónni la sa sa kër ndijaay diw wala dara yooyu noonu war nañ koy mën a éviter bu baax a baax a baax soo amee soxla war nga mën a jàkkaaru nit ki wax ko par rapport ak ngay di ko tayle di ko a yónni donc am na femme yoo xam ne nawet nag bon maa ngi mhm. dañuy dem ba dañuy jaaylu seen doom seen doom nag su defee benn affaire bi dañ koy jéem a nës nasal nës nasal yooyu nag moom mooy dem ba indi mooy indi problème yi ngay fii gis yëpp mhm. mooy euh, mbir mi daal mu ngi noonu également mu ngi ci loxoy yoon waaye di leen rappeler nag daal viol dañ ko criminaliser te léegi tamit peine bi 10 ans la surtout nag rawatina ci xale bu am 13 ans bu ñu violé ah, donc ma bëggoon ñëw tamit ñi nga xam ne aussi ñooy protéger xale yi ñu gën a defaat seen liggéey parce que li dégg ci violu xale yi bëri na trop trop trop donc nañ gën a jàppaat gën a topp xale yi di wax aussi parents yi tamit doom boo ko amee mm-hmm. da nga koy xool ñun dañuy rappelé wu bi ñuy nekk xale suñu yaay mm-hmm. bu ñu yónniwaan fenn ñu yàgg sax wala ñu guddee wàcc bu ñu ah, ñëwee dañuy sim suñu silip yu xool mm-hmm. vérifier man je me rappelle man sama papa daawul nangu bi ñuy nekk xale comme góor di dugg ci néegu jigéen jigéen di dugg ci néegu góor mhm. parce que man je me bi ñuy nekk xale sama ay cousins yi ñu ñëpp suñu kër ñoom ñëpp sama papa góor ñi di dugg ci néegu jigéen ñi jigéen ñi di dugg ci néegu góor ñi man ba nii may wax ak yow sama papa bu soxlaa suñu néeg du dugg sax ci buntu lay dëkk fëgg yooyu yëpp da koy xool parce que seytaane dafa doy waar mhm. rawatina nag jàmbur ak jàmbur kon parents yi nañ bàyyi ñoo xam ñaay ñu yónni xale yi dama comme ni ko bourgeois waxee dama sa demal ma jaay leen bi sax da ngay gis na fi ay xale yu ndaw da taxaw yàlla bu bu la yàlla dimbali ba guddi gi nga dem baali de dem vote waali fekk wala nga dem beneen soirée xale yu ndaw la ñuy yelwaan loo te dañuy ànd ak seen yaay ak seen papa yi de mais dañuy làqatu bëgg a joué ci xam nga xam nañ sénégalais dafa sensible mm-hmm. bëgg a joué ci xale yi da ngay gis 3 heures du matin xale ñëw taxaw di lox di katkati seddaay bi naan la dimbale ma yelwaan ma mais kooku bu dajee ak malfaiteur koy jël neexal ko ab 200 xale xamul dara yàq ko ba pare tamit doom da nga koy surveiller bu amee lu koy métti nga yóbbu ko ci gynéco di simi siripam di xool di saytu parents yi tamit am nañ ci part de responsabilité bu bari bari bari hmm. waa droit de l'homme tamit protection de l'enfant tam ñu jógaat ci bu baax a baax hmm. loolu daal lañ leen di surtout surtout hmm. surtout les les les les droits de l'homme parce qu'il faut dire que les enfants qui sont dans les rues certes ils aident leurs parents parce que nag on est dans un pays pas du tout développé mais euh, li ci mën a jàpp rek mooy euh, mettre c'est un travail qu'on les fait faire. Et c'est euh, ça. la place mais est-ce que ces petits-là peuvent aider les parents. ce pas à la à dans les ruelles euh, mais ci école yi la ngir ñëw euh, sàkku xam-xam yaa ngi ci doon bëgg a yokk. waaw parce que li ma si doon bëgg ñëw rek moo di dama bëgg ñu dellu si aux valeurs mm-hmm. xam nga valeur première yi mooy ngor mooy jom mooy dignité. Mm, xam nga nit ki mar naan waruloo tax naan petit. Mm-hmm. lu mu métti métti tu te dis que quelque sombre que puisse être la nuit il fera toujours jour kon mm-hmm. mm-hmm. sa doom boo ko jëlee li Bamba doon wax léegi naan ko demal sa nijaay sàngam ni ko sama yaay nee na nga abal ko téeméer sama yaay nee na nga abal ko 1000 francs yaa ngi koy jàngal tendre la main yaa ngi koy jàngal lijjanti te su boobaa le prix à ci kanam la jëm ndax moo ëllëgee ne ah man kat xëy na su ma bëgg